maam Serafal laa ilaaha illallah. aùzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim. alhamdulillaahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaam ala asrafil mursaliin sayyidina wa mawlaana muhammadin wa ala aalihi wa asxaabi ajmaïn. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuhu. mbokki jullit yi mbokki taalibe yi. ñoo ngi leen nuyu baax te di leen siyaar di ci jiital sunu xalifa sëriñ Mouhamadul Mountakha basiir di ñaan suñu borom yàggal fi lool te may ko ak wér ba li mu yéene liggéey sëriñ Tuubaa lépp suñu borom may ko kàttan ba mu yeggale ko bu ngeen gisee jataay bii nag mu mel ne bis dëgmal na di bisub sëriñ Mouhamadul Mountakha Gueye mu ngay woote fii ci janatu Mawa ci ndigalul sëriñ Mouhamadul Mountakha Bachir muy cant goo xam ne si da koy defal Serigne Touba bis boobu nag mi ngi nekk la 5 avril biñu ñu jëm incha allahu rabbi ngi ciy woo mbokk jullit yëpp mbokk taalib yëpp fu waaye mën di nekk rek ñoo leen di woo ci bis boobu kon boo defee duñu guddal dañuy jox kàddu Moussa Diagne mi nga xam si mooy jëwriñu liggéey bi muy sànni ci kàddu. aùzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe bi yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax leen ziare comme ni ko sëriñ Xaadim Kan waxee rek euh, bis bi nga xamante ni moom lañ daan baaxoo di def fii si Touba Dianantou Mahwa muy bisub sëriñ Mountakha Guèye bi moo dellusiwaat moo waral jotaay bi kon ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi sàkku ci mbooloo mi nga xamante ni ñooy teewee jotaay bi ñu ñaanal sëriñ ndaxa mu yàgg fi lool te wér ñu ngi koy ñaanal sëriñ Mountakha mu yàgg fi loolu te wér kon liggéey bi nag comme niñ ko niñ ko baaxoo di defee rek ñun ñi nga xamante ne yàlla dogal na ñoo topp ginnaaw seriñ sëriñ Mountakha Guèye di ko jàppale ñooy woote ci turu soppe yëpp fépp fu waay mën a nekk soppe yi nekk ñu nekk Diourbel ñun fu mën a nekk ñi ngi lay woo ci bis boobu muy tombeek la cinq ñu ngi koy ñu ñu ngi koy fàttali mbokk soppe yëpp liggéey bi ñu ngi ciy soññi comme nam daan def ndax ku xam na ni liggéey bi yaat dana danaan yaatu daanaka juróomi fan yi jiitu yi ak juróomi fan yi mujj yëpp ci fii la ñuy nekk dajale di liggéey liggéey bi comme ba ba bis bi yemb kon ñu ngi ci ñu ngi koy fàttali suñu bopp di ko fàttali ñëpp di ko di di di ci woo ñëpp nag di di di di di wax ni képp ko xamante ni teew na fi rek yàlla na Serigne Touba faj say aajo ci kon ñu ngi ñu ngi jox Serigne Abdou Thiam mi nga xamante ni moo yore mbirum euh, organisation bi. bisimilah rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kenn ku ci nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur sa sant di jiite ci nuy beeg ziare bi sëriñ Mountakha ibnu sëriñ Basiru suñ borom kàttanal ko te may ko ba lépp lu mu yéenee maam suñ borom kàttanal ko te te defal ko ko di ñaanal sëriñ Sidi Moxtaar Mbàkke suñ borom yokk leeram taas nu ci di ñaanal sama sëriñ sëriñ Xaadim Lo suñ borom may ko wér ba lépp lu mu yéenee liggéeyal maam ja suñ borom defal ko ko ku dégg suñu kàddoo xam ne am na bis buñ daan waaj bu del seeti muy bisab sëriñ Mountakha Guèye sant sëriñ Touba fii ci Touba Jannatul Mahwa mu mel ni kon daanañ ko jàpp chaque année kon bis bi del seeti na ñu di ko fàttali mbokki jullit mbokki taalibe yi te leen xamal ne bis bi jub si na muy la 5 avril fii ci Touba Jannatul Mahwa jannatu nag buñ ko waxee nag du waa jannatu rek ñoo ko moom ndax bis la boo xam ne sant sëñ Touba la te sant sëñ ku ci nekk war na la kon fu waay nekk na nga xam ne appel bi boo ko déggee mooy sa wootee ci bis bi nga xam ne bis bi sa bisa mu mel ni loolu daanañ ci ànd ak membre yi nga xam ne ni ñoo nekk ci biir jannatu ak biir daaru minam ak li ko wër ñu leen koy fàttali leen soññ ci liggéey bi des na ko tàmbali la deux mu jëm ci wàllum baas ak jëli bagage ngir samp baas yi ngir waajale ko bis bi ba la six ba la sept ngir ñu delloo bagage yi ñu ngi ciy soññ nag mboolem jullit mboolem taalibe fépp fu membre nekk rek na nga xam ne bis bi sa bisa ku dégg appel bi na nga xam ne mooy sa bu wootee. jërëjëf Serigne Abdou Thiam ci leeral yu am solo yooyu nga leeral kon xam naa dana jox Serigne Thierno Lo moom mu wax ci bis bi programme bi nu muy tëddee. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman ginnaaw bi ñu sante yàlla di julli si yonent bi alayhi salaatu wa salaam ñu ngi leen nuyu bu baax a baax te. du leen ziare te di sant bu baax di jiital si sant boobu euh, xalif général di murit Sëriñ Muntaxa Mbàkke ma yàgg fi loolu te wér di ñaanal bépp jullit di ñaanal bépp taaliba comme nin ko waxee rek ñu ngi waajal bis bu am solo bis bi nag ñu ngi koy amal le 5 avril 2018 fii si Touba Jannatul Mahwa ñu ngi si woo ñëpp nag di di si jiital nag bépp taaliba rawatina daayir yi nga xam ne nii. ñoo nekk si gox bi si woo ñëpp waa daayir yi nga xam ne ñoo nekk janatu maxwa daayir yi nga xam ne ñoo ak li ko wër ba si umul xoraa ba si sàmm ñu ngi woo ñëpp kon xam naa bu ko defee programme bi lañ leen di fësal nii ndax avant cant gi eh, danañ woote ay réunion bureau yoo xam ne ni am na benn réunion boo xam ne dana ko woote le 21 bii di ñëw muy le 21 mars muy réunion générale fii si Kër Sëñ Muntaxa bu ko defee ñu ngi si woo ñëpp na ñëpp ñëw ginnaaw loolu tamit danañ waat beneen réunion boo xam ne nii ginnaaw euh, le 23 lay doon ñu ngi koy woo tamit réunion bureau bu ko defee tamit ñu ngi siy sàkku képp koo xam ne danga bokk si bureau bi rek ñu ngi lay woo si réunion boobu. bu ko defee tamit euh, le jour du cant muy le cinq avril tamit ñu ngi si woo ñëpp di si woo ñëpp di si woo membre yëpp di si woo daayira yëpp. kon xam naa ne ko defee foofu laay taxawlu samay kàddu salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf. jërëjëf Serigne Thierno Lo ci leeral yu am solo yooyu. kon xam naa bis bi nag sëriñ Mountakha Gueye da ko tuddee soxna maam say Fall moom sëriñ Modou Moustapha Fall ki nga xamante ni nag moo ko teewal di wax ci kàddoom mooy sëriñ Sakariya Fall moom mooy wax ci turu soxna si. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. gannaaw bu ñu sante yàlla subhaanahu wa julli ci yonantum tedd ba sallallahu alayhi wa sallam sant Cheikh Amadou Bamba Xaadimu Rasuul suñu yaakaar te ak ëllëg ñoo ngi gërëm maam Cheikh Ibrahima Fall ñu yëkkati suñuy kàddu nag ci turu soxna maam Sey Fall moom sëñ Modou Moustapha Fall moom Cheikh Ibra kàddu yeet diis lool ci ñun waaye bi may jóg daf ma booleeg koo xam ne kenn la ci ñun muy suñu nijaay di nijaay Papa ànd ak jarbaatam ak sëriñ làmp sëñ Maawo Jeng ak sëriñ làmp Fall maam Cheikh mii nga xam ne wóola réew sëñ Muntaxa la moom itam di kuy yëngu ci turu yàlla loolu day wone dayo bis bi bis bi nag li tax mu rëy ci ñun mooy buñ ñuy joxub cër ci Tuubaa gi ñuy dëkk Cheikh Ibra tax te buñ ñuy jox cër ci Cheikh Ibra sëñ Modou Moustapha la tax te buñ ñuy jox cër ngir sëñ Modou Moussa Fall soxna maam sayee tax kon bis bi dañ ko tuddee soxna maam say waaye ñun lay suñu bis sabab bi nag it bettuñu ndax sëñ Muntaxa ku ne xam na digganteem ak soxna si ba ci Mbàkke Kajoor gi weesu ba ma reere ba noppi falaa ko fekk ca baas ba soxna si xayma ci ëttam falaa ko fekk muy muy muy yëkkati tur yàlla soxna si nag nee na li tax bis bi rëy ci moom muntaxa li mi doon doon ndaw bàyyi na ko xel ndax moo ko jëkk a def ba tax na moomet it mi ngi ciy soññ képp koo xam ne askanoo nga ci ma kër maam Cheikh xam leen ni bis bii bisub kër Cheikh Ibra la mi ngi ciy soññ ay bokki askanam ak bokki meenam di ci soññit waa jànnatu gi nga xam ne ñoom la dëkkal dëkkinu rafet ne xam ne daal bis la boo xam ne noo xalaat ne dayo bi toll na ko ci moom rek weesu na ko kon euh, nañ ñaan yàlla yàlla yóbbu ñu ci ak jàmm ba lañ ca seenu yëpp sam dogal ko ci kàttanu yàlla. waaw jërëjëf sëriñ bi kàddu yi rafet na am na solo leer na tamit ñu ngi lay ñaanal ci doole Cheikh Ibra yi tamit li nga bëgg liggéeyal ci ci yoonu Cheikh yi yàlla bu ko dara yàq ci barke Cheikh kon xam naa dañuy dañ ko dara jaale woon nag. ay ay ay ñoo xamante ne eh, fuñ mën a fuñ mës a toll ci liggéey bi rek ñi ngi ñi nokk ñi ngi nekk ci suñu wet muy soxna salakan Kane ku ne xam na ko ak digganteem ak Serigne Mountakha Gueye ak eh, soxna May Diba nga xamante ne ñoo sësoo ay kër lépp loo xamante ni Mountakha mas na ko soxla bis bi rek ñoom ñooñu seen seen seen dara mosu koo fekkee kon xam naa ne dañuy jox eh, soxna May Diba moom moom moom mu wax ci bis bi. soxna may demee bisimilah. bisimilah rahmaani rahiim ñoo ngi nuyu kenn ku ne ci turam ak ci santa di nuyu waa jànnatul mahwa gépp te di leen xamal ne bis bi kat sunu bisa nañu ci daan def rek nañ ci def lu raw ndax tey bis bi sunu bisa ñoo ngi woo yépp nag daayira maam jaara bi daayira saafil mu saafil bi mboolem daayira ci koñ bi ak maam jaara yeeg mbootaay yëpp ñu ngi leen di woo bis bi kat sunu bisa ñoo ngi ñaan yàlla ñu dugg ci ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabbil alamin naa ne dañuy jox soxna Fama Dieng moom mooy wax ci kàddu soxna Salakan. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu wax ci kàddu Salakan sunu xarit sunu lépp xarit sëñ Mountakha mu dara jaale ko bis bii muy ñaan ci yàlla ak yonent bi Serigne Touba. yal na bis bi gën ci bis yi yal na bis bi dàq ci bis yi ci barke maam Saaliw borom Daaru Xafoor man mi koy waxal sama sëriñ di ñaanal sëñ Muntaxa mi yàgg fi mi yàgg fi lool Mbàkke di ñaanal sëñ Muntaxa mi nag gone bu loxoom setee day bokk ak ay mag sëñ Muntaxa am na yar am na teggin am na kilifa ñu lay ñaanal ci barke sëñ Muntaxa sa liggéeyu ndey sa barke baay foo bëggee a yegg yal na nga fa yegg salakan nee na moom sant na la gërëm na la mu ngi lay jox sa wàccuwaay di ko jox mbooleem ku topp ci yow nag di ko jox mbooleem ku ne ca kaw ba ca suuf nag rek mi ngi leen di jox seen wàccuwaay ndax nee na mun laa fay nee na nag mi ngi woowaa mbootaayam di woo maam jaara yi di woo mbooleem ku ne maase maam Binta rek di xaritam di soppeem di léppam nee na mi ngi lay woo ci bisub sëñ Mountakha bi. waaw ah, jërëjëf soxna Fama Dieng kaddu yi am na solo lool kon xam naa dañuy jox sëriñ Mountakha Guèye. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Cheikh Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool tuur ak njabootug maam Cheikh Ibrahima Fall gépp ñoo ngi nuyu jotaay bi yëpp di nuyu sunu wayjur yi ci kër gi. di leen ñaanal suñu borom guddal seen fan te may leen wér ah, di rafetlu jotaay bi bu baax a baax a baax di ci am mbégte te di ci sant yàlla bu baax a baax ndax jotaay bi kat tey ak yokk am na ci ndax deretu Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi fi toog ah, ànd ak délégation bu am solo ak sunu yaay ju baax ji nga xam ne moom lañ dëkkal soxna May Diba muy ku ñu jàppe comme njabootam te fonkuñu bëgguñu lool ak sunu yaay Fama Dieng ñoom ñi nga xam ne ñoom lañ dara jaale bis bi. Ah, ñoo ngi leen di nuyu di leen siyaar kàddu yi fi jaar lépp rafet na te am na solo ñun liñ ciy jottali rek mooy di woo ah, waa daara yi Serigne Mountakha Mbacké Daaru Tanzil ñoom ñi xam ne ñoo daan yëngu ci alxuraan ji ak mbooleem daara yi nekk fii ci jannatu maxwaa te daal ñu jàppale ci bis bi ma du jar ñuy lim ndax ku gis yëf yi rek da nga ah, egsi na ci yow te dina fexe ba egsi ci yow incha allah kon ñoo ngi leen ci woo ci alxuraan ji ak xasaayid yi ak zikurulaay gi yëpp mbooleem lu nit di tudd ci lu baax rek ñoo ngi la ciy sàkku nga jàppale ñu ci bis bi ñoo ngi ci woo seen daare yëpp di woo mbooleem euh, ñu baax ñi ne ci koñ bi ñëpp bàyyiwunu kenn euh, li mata a wax lépp wax nañ ko kon ñun loolu rek lañ ci wax ñoo ngi woo mbooleem jànkati xasida yi ñu dëkkal di suñuy rak ñoo ngi ci woo ñëpp ak mbooleem suñuy magi jànkat yi bàyyiwunu kenn ñoo ngi woo ñëpp nga xam ne bis bi seenu bis la bisu xasaayit la ndax xaside yi ñuy yëngu te yàlla dogal ko ci ñun bañ euh, sëñ Tuubaa lum lu ñu ci defal loole rek la ñuy delloo njukkal di sant sëriñ Tuubaa bu baax moo waral bis bii kon nag ñoo ngi ciy woo ñëpp bàyyiwunu kenn di sant sëriñ Muntaxa Njaay Gabon production mi nga xam ni ñoo bokk sëñ taxa te lépp lu sëñ bi wax moom mooy doon ki nga xam ni moom moo koy dékku te bis bañ ko dalee tàmbaleeg léegi moo koy taxaw saa su ne di ci def dooleem ak léppam di ko ñaanal sunu borom yokk matériel am ba boole ko ci ñi nga xam ni àdduna sépp leen di déglu ci barke Seex taxa kon wasalaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf Sëriñ Muntaxa kàddu yi rafet na lool am na solo kon nag bis baa ngi noonu muy le 5 avril ñi ñu ngi ciy sàkku teewaayu mbokki jullit yëpp ak mbokk taalibe yi kon xam naa danañ jox maam seex mi nga xamante ne moo ko tijji woon ci Zikrulaah moo moo moo mu tëjaat ko. murid yow lay demoo Cheikh Ibrahima Fall. Baabul yaay rijaal xam-xam bu rëy nga ku la xam doon ak rijaal yàlla la xam te di la roy Cheikh Ibrahima Fall fi nangoo liggéey toroxlu tabe da koo dagaan ci yow wallahi maam Seera Fall